ñu ngi lay dalal monsieur Aidara. Euh, maa ngi leen di fay di seen auditeurs yi Elisabeth. ñu lay jaajëfal bu baax a baax gannaaw loolu nag ñu wax ci li nga xam ne mooy rupture contrat diggante Senelec ak li mu doon jamono ji lu ñuy laam-laame donte amagul tey ji euh, njiitu réew mi gis nañu li mu àddu jëm ci boobu lay contrat joxe sax ay proposition nan ngeen jàngatee li ni mel. waaw wax dëgg yàlla si presse bi lañ ko déggee. Mhm. mais bu dee li ñu liir ci presse bi ak ni ñu ko déggee noonu la demee wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu di wax ne président de la république position bi mu jël mooy position bu juste. Mhm. mooy position boo xamante ne bi vraiment mooy intéret Sénégal. te ñun depuis début affaire ba léegi loolu la ñuy wax parce que contrat bi boo xoolee ni ñu ko tëggee di nga gis ne nekkul woon intérêt entreprise bi nekkul woon intérêt consommateur yi nekkul woon intéret euh, Sénégal. Mhm. moo tax tey jii vraiment mënuñu def lu dul rafetlu ko. waaye nag dañ koy wax ne bu ñu foofu parce que du contrat boobu rek lañ wax ne baaxul. Mhm. am na yeneen contrat yoo xam ne ñu ngi ci biir kër gi te baaxuñu. bon donc moo tax tey jii am na benn acte bu mu posé mais am na yeneen yoo xamante ni bu ko xoolee aussi dina nekk loo xam ne dina nekk avantage yu Sénélec pour mu réduire ay ay charge am. Mhm. te bu réduire ay charge am loolu euh, consommateurs yi ñoom ñoo ciy bénéficier parce que dina permettre ñu wàññi. njëgu électricité bi nga xam ne ñun jàpp nañ ne ba léegi dafa cher. Mhm. tey jii njiitu réew mi ci ay proposition yi mu joxe bokk na ci ak lii daal di jëndaat li nga xam ne par euh, ngir mu gën a euh, bokk maanaam fusionner ak entreprise Senelec ndax yéen pare ngeen pour liggéey ak moom. bon am na lu ma gis tamit ci presse bi nee ni ñu taxawale ak lii sax jaarul yoon euh, donc loolu nag wóoruma ndax dëgg la dëgg. Mhm. su fekkente ne bi ni ñu taxawale ACILI sur le plan juridique nekkul yoon bu boobaa ACILI dañ ko war a dissoudre mhm. mais su fekkee ne ni ñu ko taxawalee baax na ah te ñun ñu gis ne li nga xam ne moom lañ doon wax démb bërki démb mooy li nga xam ne mooy cœur de métier Senelec mhm. mooy li nga xam ne mooy ñuy permettre ñu ñu jot xaalis di jaay di jaay courant di jot ci xaalis bi mhm. loolu buñ ko delloo si waatee ci Senelec et que ñu gis ne Akilee am na lu ñuy proposé loo xam ne amul woon ci Senelec wala ay agent u Senelec amuñ mënuñu ko mm-hmm. te loolu di di ñu jàppale ci liggéey bi di ñu dimbale pour ñu gën a performant bu boobaa wax dëgg yàlla dañ koy jël tey jii Akilee bu pare woon d'accord lépp li nga xam ne njiitu réew mi tegal na ko comme proposition liggéey ak Senelec lan mooy soppeeku ci li nga xam ne yéen moom ngeen doon ñaxtu bon bu paree pour liggéey Sénélec ñu gisuñu ci inconvénient mhm. li ñu bañoon rek mooy ni ñu takkee Sénélec takk ay tànkam takk ay loxom takk bëtam takk gémmiñam jébbal ko akili loolu lañ doon bañ mhm. mais tey jii bu d'accordeen liggéey Sénélec nañ bàyyee Sénélec li nga xam ne moom la daan def. Mhm. d'autant plus que moom ak li li muy proposé ci projet bi ñun Sénélec am nañ ko ba pare. Mhm. donc loolu nañ ko bàyyee waat Sénélec ñu continuer di ko def te itam am na ay yu nekk biir Sénélec yu xarañ. Mhm. yoo xamante ni tey jii confiance bi ñu jox ak bu ñu ko joxee agence Sénélec yi nga xam ne ñu fiy liggéey mën nañu def ba def lu raw loolu. maintenant bu fekkee nag ak daf ñu indi leneen lu bees loo xamante ba pare mu loo xam ne daf ñuy jàppale ci mbir liggéey bi pour Senelec jëm kanam wax dëgg yàlla bu boobaa dañuy jël loolu ànd ci ak Akilee liggéey ko. Mhm. tey jii ci base de supposition yooyu ba tey Akilee euh, bu d'accordul nam rompre lii di contrat bi lan mooy xew ndax seen Senelec dina ko fay ay dommages et intérêts wala. waaw xam nga contrat bi moom wax dëgg yàlla contrat la buñ signé normalement ba pare enregistré ko. Mhm. tey jii bu fekkente ne bi li Sénélec bi waxtaan ak ak li jubóowuñ ci ak li bu ko neexee moom mën na porter plainte dem ci justice mais bu demee ci justice ñun dañu jàpp ne bu boobaa Sénélec dina am alal ju bëri ju muy nar a fay. te mhm. alal jooju Sénélec du ko jëlee feneen fudul si biir. Mhm. mais bala ñuy fayloo Sénélec nag loolu. ñi nga xam ne ñoom ñoo toogoon bi bu dugal Sénélec ci njombe ñooñ dañ leen a war woo ñoom ñoo war a fay lool mais waruñ ko fayloo Sénélec waruñ ko fayle hôtel état du Sénégal mhm. waruñ ko aussi fayloo client wu Sénélec bi mhm. donc loolu moo tax euh, ñu jàpp ne tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo tëggoon contrat bi ba signé ko ñi ciy participer ci processus bi yépp dañ leen a war entendre bu fekkente ne bii ak lii dafa dem ba porter plainte ba Sénélec nar a perte bu ñuy amee lu ñuy fay ñoo ñoo ko war a fay waaye ñun nanguwuñu tey jii ñu jël xaalis Sénélec di ko fay maintenant nguuru Sénégal nag président de la na décider nguur gi fay ko te bu boobaa tamit sa sama poche parce que si poche contribuable sénégalais bi lay jóge. mu mel ni dafa am tamit yeneen contrat yi nga xam ne yéen a ngi koy euh, ñaawlu euh, yu ci mel nii est-ce que mën nañoo xam yan ak yan ak yan ngeen jàpp ne euh, signé wuñu ko nu mu waree. liñ ci yeneen yi gis nañ ci benn boo xam ne moom Excelec la. ndax contrat Akilee bi sax mën nañ wax ne ko signé nañ ko waaye Senelec perte gu ci lu bëri. Mhm. mais contrat bi nga xam ne mooy Excelec. Excelec mii naa la ndëkkoon a tudd bu njëkk ñu amoon contrat ak Senelec doon leen jox ay poto yi nga xam ne fa la fii lii di jaar. Mhm. ñu jaar ñu ay poto yoo xam ne poto ya baaxul mais bi ñu demee ba ci biir gis ne poto yu baaxul dañu arrêté woon contrat boobu. Mhm. daal di topp ki nga xam ne mooy kilifa Mina. léegi nag Mina moomu dafa soppi turam daal di ñëw tudd léegi au lieu mu ñuy jaay ay poto yoo xam ne poto bois la mu ñuy jaay ay poto béton mais ci biir contrat boobu gis nañ ne mina bi ñu contracté ak ñoom ci mois de janvier bindal nañ leen kayit bu firnde ne ñun jot nañu ay poto yu toll ci sept mille poto te boobu mina euh, Excelec joxagul Senelec benn poto mm-hmm. poto yi mu njëkk a jox Senelec mu ngi ko ko jox au mois d' avril donc naka lañ ñuy joxe ay poto mois d' avril te boobu li ñu jox sax bëriwul ñun ñu daal di leen fay xaalis xamante ne bii sax jotaguñu woon poto yi. Mhm. loolu moom problème bu rëy rëy la donc loolu dafa mel ni détournement te Sénélec bi muy fay loolu eh, dafa dem ci banque yi lépp xaalis pour fay Mina. Mhm. te loolu mu lépp si banques yi muy ay milliards dafa am ay intérêt yu ci tege non seulement fay nañ leen luñ joxeegul mais ñoom tax nañ Sénélec endetté wu. ci banque yi pour fay leen te loolu endettement boobu aussi intérêt yooyu Senelec moo ko supporté mhm. loolu aussi jàpp nañ ne jaaduwul bon foofu nag ñu ngi ciy gëstu bu baax am nañ ci ay information mais ñu gën a gëstu pour gën ci amee information comme ni ñu amoon information ci Akilee mhm. bu ñu demee ba nga xam ne tënk nañu suñu enquête dinañ leen ko jébbal yéen pour ngeen xam ne kat tey jii Senelec ni ñu xoole contrat Akilee bi ba kaase ko mhm. noonu la ñu war a xoole contrat Excelec nan kañ lañ ko xaatim le contrat contrat boobu ñu ngi ko xaatim ci biir deux mille dix huit. Mhm. commencé ko exécuter ci biir deux mille dix neuf. mu am tamit yeneen contrat yi nga xam ne jot nga ko tudd. waaw am na yeneen contrat parce que am na benn système d'information bu ñuy wax nouveau système d'information clientèle. Mhm. boo xam ne naam contrat boobu daal ci niñ ko xalaate baax na. mais niñ ko tëggee ak ni ñu koy déroulé dañu jàpp ne am na ay tolof tolof parce que contrat bi dañu ne woon cinq milliards lay dikke Senelec. Mhm. mais tey ji ñu ngi yokk di yokk di yokk di yokk ba tey jii dégg naa ne sax yegg na dix milliards te ñun amaguñu lu ñu bëgg ci contrat boobu. Mhm. ñuy laaj nag jóge cinq milliards ba dem dix milliards yeneen cinq milliards yi ci tege ci anam la ko Senelec di fayee parce que boo defee benn cahier de charge nga ne waa ji man lii laa bëgg mu ne mën naa ko. Mhm. ngeen waxaale ba juboo ci cinq milliards ci cinq milliards yor nga war a yem. pourquoi ñuy yokkaat di leen dolliwaat di leen dolliwaat di leen dolliwaat ba mu jógee du simple au double. Mhm. loolu dañ ko war a xool. d'autant plus que bi ñu commencé wax ci affaire bi chef de projet bi dafa démissionné. Mhm. lan moo waral mu démissionné xamuñu ko. Mhm. donc est-ce que moom tey ji amul lu luub wala lu lëndëm ba tax tey ji mu dem démissionné te fekk contrat bi jeexagul d'autant plus que ñun ñu ngi ciy wax donc loolu jàpp nañ ne dañ ko war a xool. Mhm. am na aussi ak ay contrat yoo xam ne lié nañ ko ak ay assurance ñun ñëpp xam nañ ne assurance xaalis kese moo fa nekk te contrat yooyu ñu signé ak assurance bi. muy ñun suñu xaalis boo xam ne bu ñu retraité liñ ñu war a tey contrat yooyu gis nañ ne. ñun ñu ngi koy laajte waa Sénélec boobu ba léegi te mënuñu ñu won contrat yi ba ñu xam lan moo ci njëriñu Sénélec lan moo ci njëriñu liggéeyukaayu Sénélec donc moo tax contrat yooyu aussi dañ jàpp ne am na ci lu ci lënt. Mhm. moo tax daal globalement bëgguñu di ko benn bennal mais dañoo bëgg Sénélec ñu audité ko. li ci baax si ay contrat ñu wéyal ko li ci bon ci ay contrat ñu taxaw seetlu ko càmbar ko xool ñan ñooy responsable yi ñu ne leen yéen lan moo waraloon ngeen def lii mhm. ak lan moo nekkoon si gannaaw bi ngeen di def lii mhm. comme saa loolu lépp nga xam dafa naroon nekk ay perte ñu delloosiwaat ko si gafaka Senelec te buñ ko delloosiwaatee ci gafaka Senelec dafay wàññi li nga xam ne moom la Senelec yenn woon mooy charge yi te bu Senelec ay charge am wàññee normalement war nañu mën a Euh, wàññi prix électricité bi parce que ñun ñëpp xam nañ ne Senelec courant bi dafa cher li cheral courant bi nag mooy def ay projet yoo xam ne amalul benn njëriñ Senelec di enrichir ay nit ci yaama neex te loolu vraiment Senelec sénégalais yi ñu waruñ ko noon en tout cas ñun syndicats yi si biir nanguwuñ ko donc yéen population yi waru leen nangu lool. wax nga ko tout à wu leen li nga xam ne mooy seen combat waaye gis nañ ne contrat yi ngeen sulli jamono ji yëpp euh, mu doonoon ci jamono yi Matar tey gis nañ ne ay association de droit de consommateur ñu ngi fi tey ne nañu euh, saytu li nga xam ne moom mooy gestion am ndax dafa mel ni yéen ci tànk yooyu ngeen ne. waa ñun de waxuñu ne nañu saytu benn gestion dañ ne Senelec ni muy doxee nañ ko seet. ñun nag yemale wuñ ko ci gestion kii wala kële parce que ñun ci ay principe la ñuy dox. Mm-hmm. Sénélec daal am na ci loo xam ne lënt nañu. te Sénélec tamit dañ koo dénk nit mais nit kooku dafa am ñeneen ñu muy liggéeyandool. Mm-hmm. am na yi nga xam ne jàpp ñu lënt nañu ñun xooluñu ku ko signé dañu jàpp ne direction générale bu Sénélec moo ko signé. yooyu lañu bëgg ñu tegaat ko ci taabal ji càmbar ko xool est-ce que am na intérêt pour Sénélec ñu wéyal ko soo amul intérêt Sénélec ñu taxawal ko buñ ko taxawalee nag. bu boobaa war nañu xool kan ak kan ak kan ñoom ñoo tëgg lii ba mu indil gàllankoor yi Senelec mhm. tey jii mu am tamit beneen euh, bu doon seen bébét mooy euh, liggéeykatu Senelec ñu bokk ci conseil d'administration bi loolu lan lay soppi ci euh, prise de décision yi loolu dafay jëriñ parce que aujourd'hui conseil d'administration bu Senelec kenn rek moo fa toogal Senelec yépp muy directeur général mhm. donc directeur général bu demee yóbbu ci conseil ba dara te ña nekk ci conseil ba nekk ñu biir Senelec ñooñu du ñu mën a am élément yi nga xam ne moo leen di permettre ñu apprécier ndax lii baax na pour Sénélec wala déet. Mhm. mais bu fekkee am na ñeneen ñu fa toogal Sénélec buñ fa directeur général indilee indee lu baaxul pour Sénélec ñooñu dañ la yéen administrateur yi nga xam ne yéen a toog fii te nekku leen biir Sénélec ñun ñi nga xam ne ñoo xam liggéeyu Sénélec mën nañ leen a wax ndax lii baax na wala baaxul. Mhm. te loolu bu amoon ca njëlbeen nga kon contrat bii ñu signé euh, Akilee. signal ko Excelec dinañ ne leen ah lii ngeen di signé kat baaxul bu boobaa ñoom duñ ko signé les signé les yeux fermés. Mm-hmm. donc ñun dañu bëgg ñu toog fa nga xam ne fa la ñuy décider pour di mën a joxe ay éclairage ay avis technique yoo xam ne dina permettre conseil d' administration ba ña fa toogal nguur gi. Mm-hmm. toogal fa ministère yi toogal fa caisse de euh, de consignation. Mm-hmm. ñooñu ñëpp ñu xam ne kat ñun lii directeur bi général bi joxe. liggéeykat yi ànd nañ ci te buñ ko signé day njëriñ lay jural Senelec mais du ko jël lay jural ay gàllankoor. Mhm. loolu daal muy préoccupation bu forte boo xam ne ñu ngi koy ñaan nguur gi. nañ ci réfléchir pour que ñu xool daal loolu parce que yaakaar nañ ne loolu ci intérêt Senelec la intérêt nguur gi la intérêt population yi. li ni mel sax ndax jox ngeen cee waxtaan ak ñi di autorité yi. waa xam nga loolu du Senelec moo koy décider parce que conseil d' administration bi nguur gi moo koy mettre en place. Uh-huh. moom mooy décider kan moo fa war a que maa ngi fàttali ne conseil d' bu Senelec nguuru Sénégal moom moom quatre vingt dix non euh, euh, capitalu Senelec Senelec. Uh-huh. nguur gi moom moom quatre vingt pour cent yi. caisse de consignation et de dépôt moom dix pour cent yi. Uh-huh. donc ñooñu nga xam ne ñoom ñoo moom Senelec ñoom ñooy décider kan moo fay toog donc moo tax ñu koy wax à travers vos zones. pour wax na dañu bëgg ngu euh, président de la république. Mm-hmm. na xool naka lay def pour que travailleur Senelec gi nekk ci biir conseil d'administration. Mm-hmm. jërëjëf euh, monsieur Habib Aidara. waa kay maa ngi leen di sant di nuyu di jaajëfal aussi seen auditeurs yi. Mm-hmm. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi ko doon dalal moom mii di Habib Aidara secrétaire général euh, bu syndicat unique des travailleurs de la Senelec Sutelec merci beaucoup.